موضن منين يوم لا اسمي منين موضن منين يوم لا اسمي منين موضن منون غير ذو عجب منين موضن منون غير ذو عجب منين موضن ونون غير ذي عجب مودني ومفتاح ومصباح منير مودني جواد ات مودو تي في فيرت حدربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki waa Ati Maodo TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara nag di leen balu àq di leen baal àq nag di leen masawu ci seen coono fa tabarakallahu di kontaan bu baax nag ci ñëw bi nga xamante ni ñëwaat ngeen ko fii ci penc mii di pencu Kër Maseyid Mbeng fa tabarakallahu waa Kër Maseyid Mbeng yëpp kontaan nañu daaw ci ñëw gi ngeen ñëwoon fii jël si ñu jël si suñu gàmm gi yóbbu ko réew mi yëpp senegal yëpp partout laa doon wax kenn ku ci ne ba ñu ci ëpp woo nañ ma pour doon jéem a jël numéro bi pour jéem a mën a jokk am image si gàmm gi nga xamante moo fi amoon daaw te loolu nag boo amee ngir yàlla ak yéen yéen a ko loola itam taxa taxaat na tey ren jii ngeen dellu dellu nga ànd ak Eliman ak euh, suñu doom di sàngoone moom itam ak euh, baaji bi ngeen àndal fa tabarakallahu bu ngeen ñëwee tey jii defaat loola dinañ ci kontaan waaye nag suñu kontaan tey yëpp nag ñu ngi koy jëmale ci suñu sëriñ Abdou El Hadj Abdou Faty parce que kenn ku nekk tey jii dégg na gàmmu gi nga xamante ni moom la gàmm tey jii ci pencu Kër Masar Ndiaye ñëpp seen xol sedd na ci kontaan nañ ci fi la nekk nag ba asamaan set ñuy dellu nag it di di gërëm ñëpp nag waa attaman bi yëpp parce que ñëpp teew na El Hadj Amadou Mansour euh, Cissé teew na Mansour Diallo teew na ànd ak soxna Kumba Mbuub ak Souleymane ak euh, Souleymane Lamine ak Lamine Gueye moom itam teew na encore te yii teewin wu rafet ak alaaj Bàcci Diop tàggkatu yeneen bi ak yeneen xale yëpp nekk wax dëgg yàlla teew nañu waaye wax dëgg yàlla ñu ngi ñaanal suñu doom bi lépp ci ñoom jox naa ko wax naa ko sëriñ bi ba joxeel na ko dogu ñaam mooy suñu doom le président El Hadji Ndiamé Diop yàlla na yàlla doole ko saafara yaramam ci biir ak ci bitim famille yëpp nag ñëwoon nañ fi ci bëccëg muy jibi ak xale yëpp kenn ku ci ne ñëw nga fi tey jii ngir ndokkeel suñu ci bis waaye daal na leen wérte wóor ni leen Kër Masey bi yëpp ñu ngi kontaan ci ëtt Maodo TV ëtt Maodo TV nekk na njariñ loo xamante ni nii njariñul àdduna bi yëpp la dégg ngeen léegi maa ngi dégg léegi ci ngoon sama mag bi nekk Dakar di wax euh, Mansour Cissé ni ko man day ëtti Maodo li ma fa ma ko xamee mooy ci njaw parce que lu ba lu bari njaw daf ma koy envoyé pour ni ëtti Maodo la loola nag bu ko defee ci foofu laa ko xamee waaye daal euh, sëñ bi ñëpp kontaan nañu famille Serigne Maodo yëpp kontaan waa Tëngéej ji yëpp waa Thiaroy waa Dakar waa Mbour encore waa Kër Paati Xewe waa Ndaam Lo waa Kër Mbir Ndaw yëpp waa tëndu Malicounda bi yëpp kenn desul ba ci combale fii ba tentu baax ba ñëw na fi yàlla atene tey ji itam Serigne Amadou Moustapha Sy Al Amin moom moo waroon a teew si mais dafa am ay ngànt amit ay empêchement yu ko jàpp moo tax mënu la ñëw mu jabal sëriñ Assane si mu ñëw teew si fii tey teewal si nag fan Tiwaawan yëpp ànd ko ak Serigne Momadou Sall ànd ko yi nag ak ki nga xamante ni moo nekk maire Mbour mooy Cheikh Issa Cheikh moom it ñëw na teew na fi teew na fi ak député bu Mbour bi moom itam teew na fi moom itam ak ànd ko ak ay kilifa yu bari wax dëgg yàlla waaye daal bu bu seetee ñëpp kontaan nañ gën a kontaan nag mooy mu sàll Cissé bi nga moo nekk doomu Serigne Maodo te mu nekk président tribunal bu Thiès moom itam nee na ma njaw nag ma gërëmal mboolem ko fi ñëw teew si andi fii lépp loo xamante ni danga bëgg gàmm gi jëm kanam ñoom yëpp gërëm nañ ñoom ñu gërëm nañ leen waaye daal sëñ bi na lu wérte wóor ni la ñun kontaan nañu bu ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi ñaanal ëtt Maodo bu heure bii déwénee yàlla na yokk ñaanoon naa ko daaw ni ëtt Maodo li ma leen di ñaanal heure bii déwén yàlla na fekk ñu yokk defe naa ni yokkoo yokk nañu yokk nañu li ma li ma li li ma leen di garanteel ci barke Sëriñ Aj Mali Fall bii borom gàmmu gi billaahi wallaahi taalaa yi déwén bu ngeen dellu siyaate fii di ngeen gisaat beneen yokkute bu bokkul ak bi ngeen amoon law danee maninun yow yamaloo ismi manin law danee maninun yow yamaloo ismi manin law غير ذو عجب منين موتنا منون غير ذو عجب منين موتنا ونون غير ذو عجب منين موتنا ومفتاح ومصباح منير موتنا جواد التمود تي في فيرت حدربي